waaw. man moom laa jël si ndekete bi ma génne noonu mu oo sama xarit bi may besti sama xarit bi loolu lu ma def foogoo ma ko loolu la may def sax ay ak confiance bi ma am ci moom. sa meilleur ami la petit ba grand yéen a màggandoo yéen ñaar. laay ndekete ami toxide la mu may gaañ si xol xaw ma. waa oh, non embete, leen da nga tëj bunt sa fo leen bett sa sama biir sama bir lal bi. sa kaw lal. sama kaw lal man. ma fekk sama ci ni ko comme ndeyam nu ko juree. xale bu jigéen de tuunu rek wa dal ni jël dal ni jël baawa njaay bi du ko màcc. ak bés dara la lay tegal ni man nak ma ñew ak sama caabi mu sama buntu bi ndànk def ma benn buri dafa mel ni sax xam naa ne bu ma dama gis yëre yi léegi jigéen bi si man waaw lii du sama yëre de kay bi besti sama jëkkër bu ma gisee sa dafa tiit man ma lu tax oo oh, ma nga ne ma da ngay ñew man ko ah sama kii mom sama kër la man na dugg heure bu ma ne ma génn ma ne waaw man ko sa am sax bu ma fatte fi ni gis xale bu jigéen bi rek gis mu rek dal di tij ma ne ma ne ko continuer la waaye man bés gàcce bi sama jëkkër bi sax dama koy ñeme xool si da dama damay ruus may bés léegi yow noonu rek nga nga ne leen continuer leen tatati nii rien nii rek man leen waaw man leen ñu continuer may toog nii man leen ma jël chaise bi man leen keroog ma liggéey ma jël chaise toog man leen continuer ma leen di seetaan ma seede ma continuer wala soog ma génne paak loolu laa leen wax. est-ce doo ko zirik tamit. ñaakoon ah. doo zirik kaa bi. zirikuma billaahi ma ne ma génne paaka bi daal di ñëw toog tëj buntu bi ma ne man maa leen gën a continuer na appel ma bési sama dëppee bi fu mu ma bési eh, ma xool xale bi jigéen bi. xool laa sama jëkkër mu daal di woote si daal mu ñëw mu ne ma baal àkk. waaw man ko man nii amee ma amee ma la benn àkk mooy gis bi. waaw. ma conseil ma ba xam ne ma divorcé wala ma continué si sëy. non boo divorcé yow da nopp sa jëkkër. non elle sérieuse elle sérieuse mais ni mu ko waxee ba mu ko nee zirig ko mu ne man duma ko zirig <laughs> loolu moo ma reetaan loo mais du cas bi de li mu wax moo ma reetaan loo mais elle est elle a l'air sérieuse ma chérie sama xarit yaa may dégg sa jëkkër danga la wala guinéen sénégalais la. ñooy def yi sénégalais la <laughs> bëgg jigéen sénégalais la bëgg yéen fu pourquoi. munu leen yem seen yëfu yëfu baadoolo yooyu munu leen ko yemale si suñu biir ñun entre nous entre nous waaye foog ngeen yóbbu ñu à l'international pourquoi pourquoi ngeen ñuy def yi góor ñi. Hmm? bon jigéen ñun ñi dañ koy def waaye tey góor ñi yéen a aye pourquoi ngeen di yóbbu suñu jikko à l'international ah? gàcce gi fi ñu koy waxee ñun gàcce national lañu am ma chérie comme dangaa nopp sa jëkkër toogal bul génn ci sëy bi mais problème bi mooy bu ko baalee mu yomb nii bu ko baalee mu yomb nii de boqal golo gi pendant deux jours won ko ne dangaa mer bum la laal bum la jege mere ko pendant deux jours deux jours ba mu ba mu xam ne beneen yoon bu ko defatee parce que lu garaaw la def nii moom demul dina tromper ji ci biti ah <laughs> affaire bi yàggul barki démb barki démb la ko def. barki démb mu xëy si suba si mu ne maa ko defal ndekki ma ne ko defal ma ndekki nga indi ma ko si kaw table bi fii maa lay xaar mu ne ma ah ma ne ko dugal nga dem abla waa kon mi duñu dégg. très bien. noonu la jógee mu dem. kon cela veut dire yaa koy yar lu am jom. ma chérie bu mu sedd de bu mu sedd yow loolu sax ay andir ma ndekki beeg yooyu. man dèjà boo ma boo ma boo ma waxee man dèjà du ma wax ak yow sax na man moom bu ma meree moom patt gi laa lay may patt gi ak léegi defatuma dara si kër moom moo koy def man maa ko takk moom takku moo kaa contraire maa ko takk loolu kontaan naa ci waaye eh na gën a saf de kawlal bi moom bum la laal bum ne nii na xooñ ba ba ba ba limon yi di explosé bu ragal loolu bu ragal loolu ba pare na cadeau yi taw nag bul fàtte ne non seulement ne sa meilleur ami la la trompeel waaye si sa biir ne nga ko fekk sa kaw lal lu garaaw la def noonu kon kooku xam nga dara safu ko. nekkul nekkul Sénégal sax aw ma fan la dugg. ko fi ba xam gisuma. kan. waa kan moo nekkul Sénégal. xale bi jigéen bi wóor naa ko ba sonn dem naa seen kër ñu ne ma dafa

waaw ma dem foofu ma fekk parents yi parents ñu ne ma dafa dafa voyage daa jàmm la ma ne jàmm xanaa da ngeen fàttali ko sama xarit la. waaw xarit mi day ñëw fii ma leen di laajte ngeen ma si biir néeg bi. waaw ma jël si dem kër gi. waaw Falil, oh là là, Falil, mon frère, merci beaucoup. T'es trop, trop, trop chou. Merci. Mais dama bëgg nag nga conseil ma bu baax. ma chérie li may préparé sama waaj. li ma lay conseillé tout simplement kooku amul préparer? yar ko rek ba beneen yoon bu xoolatee jigéen ay xàppataatam di baatarew sax mu moom dina tourner bopp bi ba dam ma loosam il faut nga yar ko parce que góor mënu def lu garaaw lii ba pare nga bàyyi mu sedd góor boo ko bëggee lal euh, yar merci Falil kaw lal bi déjà foofu moom waxaale wu ma ko sax parce que yow moom di ma di nga ma nam yow moom sama taat yi di nga ko nam dinaa chaque jour di sol ay nuisette yu sexy lu am jom lu rafet lu lu lo xamantene ding ma gis mu ngay xif dafa melni ma chérie ma chérie wàccal ci souf parce que yow deglu moy sa problème wàccal ci souf déggoo olof de way ya fi gëna bëri wax wàccal nga déglu samay conseil dama ne gis sa xalé bu sa sa jëkkër jooju non seulement li mu def ni c'est excessivement grave waaye foog nga foog nga yar ko ba benen yo la lay wax ni du ko xalaata defati sax moy ci kawlal bi ci ko lal bi moom ma chérie defal sa lu nice bu sexy loo xamante ne macha allah yenn saa sax nga def sa tuunu neen sa tuunu neen nga ñëw tëdd ci wetam yenn saa yi ngay baagar baagari xaw ma am nga doom xaw ma amoo doom màqalaa bëri wax a tax ma wàccee la parce que am na question yu ma posé wul mais xaw ma am amoo doom ma chérie del baagar baagari ci biir bu xasee ba wàcc moom xolal na ko sa taati yi sàppi jaabanteel mais ak ay tenues yu sexy ma chérie xool ko ba mu xam ne aw awra bii nii macha allah bëgg naa ci dem waaye xool rek laa ci am teg loxo sax duma ko ci am ba pare kër gi yu bari yoo doon def di ko yërëm yooyu yëpp ah, wàññi ko bu ko bàyyi mais wàññi ko parce que boo ko bàyyee du sa arrangement mais wàññi ko wàññi ko ta bu ngeen di laalante yooyu moom na gën a sonn ci laalante bi waaw da koy jar na gën a sonn ci laalante bi comme yow da dangaa mat góor kay peese say awra sa sa sa sa kaljon tooj na sa awra peese nga xam nga ne mat na sëkk li nga yor mat na ba man macha allah nga am pour dem di ko mayee ji ci àll ba waa kon na mat nag defal loolu de bu ko ko bàyyi yar ko ba beneen yoon bu ko xalaatati defati yéen tamit mbaax gi pour lan la comme moom daa dangaa matle kay bay dem di mayee ci mbedd bi waa dina neex allo allo allo oui my bestie ma chérie toi crédit ñaar dërëm cent francs oui waaw ma chérie woote nga ma ma eh, ma chérie bu fi woote waat de sa bruit bi bëri na trop nga def sa haut-parleur ba pare di woote franchement lii nag yaa ko tey non non lii duma ko bàyyi dama koy bloqué ñaari yoon non je te bloque ma chérie je suis mais lii mënul woy ñaari yoon ngay woote def sa def sa haut-parleur ba mu ba mu ba mu kii lii pour lan la danga mel ni kuy koy bëgg a yàq live bi wala dangay ñaawalaate sérieusement allo allo allo. allo. oui ma chérie ça va. allo. ma chérie yow rek la déglu. allo. kii nee na barki kii nii baal ko <laughs> barki cheikh la wax barki cheikh kii nii <laughs> barki cheikh kii nii dama xarit boobu dama koo namm sax xaw ma ci lu mu ne xam naa dina ne doomaraam yi boobu ba léegi may kaañoo allo. allo ma ma chérie ça va. oui alhamdulilah. alhamdulilah. en fait euh, dama euh, ma ci conseiller. Mhm. Euh, gis nga en fait yàlla daf maa boole woon benn xale bu góor. Mhm. yéen xam nga tappatew leen. xam nga tappatew leen. ba ñu commencé ba léegi léegi live bi jeex 2 millions tapatage vous êtes sérieux là 2 millions tapatage ba ñu commencé ba léegi. yéen bu may yóbbu live bi privé sax da leen di bett. ay teg commentaire sax duma ko def damay jékki-jékki rek bés fii yóbbu privé ngeen di ngeen di wàcc benn benn ngeen di wàcc continuer leen rek bu leen tapoter de toog leen rek di xullee yéen alo allo. oui merci Kira. man moom ñuy génn euh, barki dem lañ am un an. Mhm. wax dëgg yàlla defal na ma lu moo koy fay. Mhm. mais le problème n'est que. dafa takk jabar euh, seen dëkk. Mm-hmm. mais day jabar jabar ji sëy su mënuñu ko en fait. Mm-hmm. en plus amul papier. Mm-hmm. Euh, kii nii merci ma chérie. ma chérie wax dëgg yàlla sa kaa bi ah allo. non allo. Allô? Allô, euh, oui. Oui. ça va. Oui, ça va, ma chérie, et toi? Ça va, c'est bien. Ça va, merci, Cassé. Mm Ça va, alhamdulillah. Mm -hmm. man là. Je suis juste pour Je suis merci Je suis parce que ça là. Je suis là. Je suis là. Je opération. là, Je suis là.

deng nga jéggal ma waa ya. doyen parce que man mom affaireu affaireu dóor yi moom duguma ci yoy ay ñew naan dañ ma laaj ordonnance 100000 dañ ma laaj ordonnance 200000 ak 500000 pour lan ni naan bloqué maay xana man sama sama sama lore sama modérateur yi nekkuñu fi sama modératrice xana xanaa nekku leen fi modérateur yi xool leen xool leen lale xool leen commentaire yi allo oui ma chérie ça va alhamdulilah ma bis boo décidé wax ci kaw rek nga woowaat ma allo <laughs> nee na au travail may sàcc di seetaan oui Oui, Lady, ça euh, ma woowee. damaa juum peut-être ah, sama xarit nag besti mu naan Lady tamit. waa ñëwal waaw xay Lady waaye Lady sax du kii waaw Lady moom mooy daam waaw waaw waaw. <laughs> ça va bien. oui ça va alhamdulilah. Mm-hmm. Euh, man nag dama am souci. waaw. te souci bi ma am moom maa teg sama bopp. waaw. man vigile laa damay gàtt ci benn gàlle. waaw. léegi nag foofu Sénégal. Sénégal fii woy. waaw. nag maa moom kese ñoo nekk ci kër gi. waaw. mais jëkkëram muy extérieur. waaw. présenté ci sa nag dama ko a xemmem carrément. yow yaa xemmem euh, ki ngay garder noonu. waaye dama ko xemmem man carrément waaye instant bi moom doy naa sëkk. noonu lu parce que un jour da doon sangu. waaw. ma dugg nànk ci nekk bi di ko yëndu. <laughs> waaw. ndekete gis na ma daf maa piégé. Wah. Sampai sampai kamera. Pandal ma pare rek delluwaat mu woo ma nànk won ma ne ma kii kan la xamatuma lu may wax waa mu ma d' gis naa ni may xoolee toujours mais amul problème donc loolu du souci ñëwal maay bés femme bi saa yu soxla dama ko koy jox waaye nangutuma bàyyi nee na lu mu gis ci man mënatul a kii quoi à chaque fois su ma bëggee bàyyi sax daf may menacé si vidéo bi ne ma lii moom boo arrêté rek vidéo bi laay yóbbu porte la plainte ne démb nga ma ci nga ma doon yëndu yow loo def soxna si yow nangutuma si ah moom def naa loo ko def loo def doomu njàmbur ji ba ñemewu laa bàyyi xam nga ne bu bonoon dana la jalax ca xaj du la du la menacé noonu kon cela veut dire moom xam xamoon na na xamoon na fi mu jëm loo def sax si xamoon na loo ko def en man nag yor li ma yor nag mooy loolu ku la sàkk yow yàlla wala ki rakku kii ko nga sax sirikal foofu nak sirik ko wàññil doo bu bu magu king ko nga kon xanaa sa omi yow da ngay da ngay dox sa sa awrab di la di di, di topp sa ginnaaw yow ah yow tam déedéet sirikal foofu ah. non sérieux nag sérieux pour dire vrai moom yàlla sàkk na ma quoi. ah Jangi neex na rek nga bëgg ne Youssou Ndour ko Youssou Ndour don concert jangi neex na dede munul ne. ah exemple la rek pour dire vrai moom euh, yàlla na ma. waaw.

loolu laa doon laaj ban solution nga ma ciy jox wala ban conseil nga may conseil xanaa ndaw si neexul nekk nii moom jaaxle na. xanaa moom neexul. trop neex moom neex na. Ah, doo barkeelu rek <laughs> lan la mu ne ko doo barkeelu rek jël si sa wërsëg. <laughs> ah en tout cas daal manqué dara de wax dëgg fa yàlla moom. mu ngi lay toppatoo nu mu waree. non franchement man léegi mën naa wax ne sax nekkatuma visuel ci kër gi maag moom taw ci kër ki damay def lu ma neex problème budget tamit amatuma ko xaalis fu ma ko laajee mu jox ma nee na ma daal yow laajal rek ma jox la. yow bëggal rek nee na la yow bëggal rek pourquoi. carrément moom la ma wax. lay dëgg dëgg moom. xamatuma te bëgg na ci génn nak parce que xam naa ne ma nekk ni mooy loolu waaye. yéen kon chaque jour ngeen nekkal ko ci wala bu amoo bu amee eh, règle am rek ngeen eh, eh, di daw kawlal bi. non souvent nak dinañ toog benn jour deux jours. ah. man daal dafa man daal dafa mel ni daal man daal maay xaar rek ba mu ma man daal damay toog rek moom moo may naan acca. des fois damay jékki saa nekk sama néeg. maa ngi ca biir ba ci bi Eh. di seetaan wah, amna na premier jour bi nag ba ma ñëwee dama yegg si tak mu ne ma kaay ma ñëw ma toog ci kaw lal bi mu war ma téléphone bi ne ma sikki amatuma lu may wax waa mu ne ma kii kan ma ne ko xamatuma lu ma lay wax kii moom du kenn ku dul man mu ne ma d' vidéo bi da koo ne le téléphone bi la jël tegee ne le ne ma donc du lii nga doon wër musa mais ko carrément futteeku. attends attends attends attends pardon na nga saaga attends pardon pause pause ma ci eh, sama xarit pause pause ma def une minute de silence dem ca biir néeg ba yéendu fi nga wax noonu après ma dellu si waat parce que fi ngay wax loolu ñor na ma li ngay wax noonu neex na ma fi nga nekk baax na attends nga ne yow danga doon yéendu sa patron. Mhm. ndax gis nga ne macha allah bëgg nga xam lu mu woddoo bëgg nga xam lu mu ngemboo parce que da ngeen a bëgg taat <laughs> noonu la kaa bi demee léegi nga dem benn jour rek nga xooñ ba xam ba dar xamoo nooy def nga ne xaama dem yéendu rek daa di bu ma tëddee guddi xalaataat ko sama biir bopp bi daa di mballu ba sama awra nga dem yéendu far yéendu boobu doon yéendu de moom nànd na la dalaa piégé rek nga daa di kii mu wan la ne la kii kan la nga ne ko mën a ndax am munoo woon miim mu daal di ne la comme danga doon yéendu léegi nag live in direct laa la koy def mu daal di def ubbil ma Racky njaay rek teg tànk euh, États-Unis beneen bi France rek daal di lay ne xewlu loo deful ci tool bi ci yow la maa ngi nii. <laughs> boobu kay ba mu ngi nii ñëwal ko. <laughs> maa la wax lu mel ni <laughs> yow tamit kuy yëndu ñu mujj ne la tool baa ngi nii nooy def. gëmeewu ma ko su ma jaar woon su ma jaaroon foofu faatu sax amul problème. la kon yéen jour boobu dëbb ngeen néeg bi ba mokk noonu. jour boobu noonu mën naa wax ni am na am na am na benn kii nu teg sax am na benn voyageur bi nekkoon noonu ci ginnaaw kooku ab jardinier la. waaw. je te jure jardinier bi dafa ñëw ci sama porte fëgg dafa yaakaaroon ni yaa quelque chose. je te jure billaay du caaxaan. ñaata temps ngeen def ci néeg bi noonu bâtiment yi bu kiiwee biir bi day xaw a kii tuuti. jardinier bi dégg na mais moom comprendre nag mais dafa fagoon ni y a quelque chose rek. waxuma loolu de sama xarit man li nga boobu man ñoruma dama ne ñaata temps ngeen def ci biir néeg ba yow. Euh, joxoon naa ko jour boobu noonu may naa ko ñaar premier bi moom def naa ci moom ay dix minutes quinze. di yegg dal ay diggante 10 15 dal fa lay yom yom dalu lolu ci préliminaire yi yep yep 10 15 minutes non préliminaire bobu aw ma tang sa préliminaire eh xogn nga sama xarit xognon nga luma jakarlo aw ma sax tang lolu nañ gaaw bala yaay e ñew lalante yep nañ gaaw bala yaay e ñew mo dak ci lalante ay ay ya. ay ay ay monsieur tu es où ana sama jëkkër li lum doon instant yaa ngi ma yëngal tëgaaloo ma ñëwal. boobu aw man jot boobu. waaw. waaye gis nga ba ma ci pare. waaw ma ne ko may ma tuuti ma dugg ci salle de bain bi sangu ba set. ñëw ne ko sangul mu sangu. waaw. ma dem jël ndox ku set naan ba doyal. naa ko may ndox ma ndox mu naan. maa ngi néeg ba. billaay ku may génnee ci néeg bi yaa naa dee waaw. merci waaw. dama ci sëgg. di ko maccal di nuuru buñ. nga nuuru buñ ko fa lu am jom. deuxième round lañ nekk waa. foo toll di dégg yuuxu yi naan yow ndekete yow doo visil kese. foo toll di dégg yuuxu may bis. boobu fa nga ko yóbbu kawe na yaa soxor. non boobu instant boobu kay dama kii nii tey rek lay daj. nga ne ko tey laa lay dóor ba nga réglé. lay laa kuy dóor di saaga yaa mën ñëpp waa. buuj naa def naa lu ne màcc naa lu ne laa def jour boobu noonu dama pare rek jox ko sama bos rek ne ko sexal mu sex eh, lu am jom <laughs> waaye may besti waaw euh, ñu bëri sexal nañ ma de waaye bosam beneen affaire eh dafa mën kooku dafa wuyu man dama bëgg jigéen ji wuyu je jigéen ji rek laay lay lalu waa saxale laa la wax ni bàyyi bés di. waaw. je pense que toog naa. bu leen tapoter de ba ma yóbbu live bi privé lii moom privé lay mujjee bu leen tapoter rek. waaw waaye man sama xel bi nekkul foofu de. waaye oh. sama xel bi dafa nekkoon lii nii moom lu muy sax nii lan la maanaam li nekk ci gémmiñ gi est-ce que amul lu mu ci def wala. waaw ci naka maa ngi xalaat lu ne ci diggante bi kii nii lan la war a sex waaye sexul dara. waaw. jour boobu noonu presque màccal na ba lu am jom. waaw. ma pare nag juutal. ba mu paree rek nga ne ko juut. ay yey yey ja du ma ko laal. waa. mu juutu ma ne ko déedéet xaaral man maay wàcc lal bi ma wàcc lal bi taxaw. da ngay gën a am appui yu gën a mën a jàpp di dóor. lay lay la lu waa. ma xëcc ko nag ba mu sës. mu tolloo ci booru lal ba waaw waaw. oh maa ngi nee na ma oh. <laughs> laa lay daggee bàyyi ba samedi <laughs> yi damay neex je te promets <laughs> comme nit ñi nee ñooy wax waxu caga kay ah nañ ko dëggal rek nañ ko dëggal rek nit ñi nee ñun ñooy wax waxu caga ah nañ ko dëggër rek foofu daal di wàcc moo tax maa ko tey bàyyi appel bi dem mako tay baye appel bi dem mais nak dañ koy denc ba samedi juta ah, yow mom fi nga joutalé nonou fi nga waccé lal bi instant da nga joutal xalé bu jigen man mo may ci chaise bi tok di xolé bu ngeen bëggé invité ma mais pour le moment ni ma ngi tok di xol ma ngi tok di sétane participer wu ma nak mais ma ngi tok di sétane ah mais yow sama xarit nak inshallah allah samedi ci goudi live bu samedi ci wo wat ma nga netali ma ba nga taxawé ci boru lal bi parce que boru bobu day day fay prix mais non gor bu taxaw ci bop ci boru lal ni mais té sa ndig li ni ay ja té sa ay ay ay ay ay <laughs> ya ay ñëwaatal samedi nga wax ñu suite bi wax ñu suite bi kat parce que ah man ma ngi sétane way ñi sétane ñu man mo manca ca ba mom lu am rek suite bi gis naa ko nii ndax maa ngi ca biir ni ba gennaguma mais yeen ñi ñi di seetaan dañuy top ka tax xamuñu suite bi kon nak samedi ci wo woowaat ma rek ñu di eggale ba nga ko juutalee yow loko def yow lo def sama xarit bi laaj <laughs> lay la la ku mën rek mën nga goor bu ciaga rek ciaga nga goor bu mën jigen rek mën nga billahi barke rasulullah jigen dula du la bu mën rek oy kulay bayi yo tamit lo deew deew dem safara ñu ko gënal <laughs> merci Falil allô. oui wa Bestie. oui ma chérie ça va. ça va bien yaa ngi si ça va alhamdulilah. maa wis si bañ maa neex. yaa ma gëna neex ma chérie. billahi dog ma neex. ndaysan yaa ngi jong ma ni waa Serigne Touba yo rek la ñuy top merci merci merci merci merci. ah. billaay wallaay wal kitaab bi sa bi li muy xalaatee la góor ñu bari di xalaatee instant yi góor ñi ñi war a mballoo ngi mballu ñi am jabar ñu ngi xaar ba guddi dem soq seen jabar di xalaat loolu yow góor ñi rek aka ñoo caga ah te ñun yooyu soofu ñu ah. bu caga soofu ñu ah allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va soxna si si loo ne. ça va si jàmm. maa si jàmm. Eh, man eh, daa am lu ma jaaxal parce que démb ci guddi ci ba am ñu may envoyé ay message waaw nekk ni man dama yéeg si sa bi doon sama yaay lu bon. lii loolu yow. li man dama bi di wax ay wax yu bon di ko teg sama yaay. yow la kan ak lo fi wax ba ñu naan sa yaay ngay waxal. man maa ngi Abdou mais démb ba léegi damay jot ay message ñu ni man damay yëg si live bi dama woote si live bii nii sa benn xarit sax moo ma jox numéro bi léegi ne ma essayé numéro bi nga woo ko ma ni ko léegi numéro Sénégal mu ni ma WhatsApp nga koy wooyu mu jàll mu ni ma wóol numéro bi parce que li trop c'est trop parce que dañu la gis ñu dañoo gis euh, vidéo bi TikTok ñu ni man damay yëg ci live bi nii di yàq sama yaay lu bon di ko wax lu bon que man sama affaire affaire yu bon daal man loolu moo ma jaaxal ñu ni voix bi ak sama voix benn na. ah kii de yaayam moo ko doon sàkku noonu. ah waaw waaw waaw. ñu ne yow la. waaw mu soo maa non non non man yo, yo, mi ce numéro ce numéro bi ak ce profil bi c'est la première femme qui se lini. man comment ma woo camé xàmmee man non non non live bi mu ngi tag ci man xaw ma ndax ci yéen mu ngi tag allo envoyé leen cœur bu orange bi ci kaw bopp sama kaw bob bi waaw allo ah. oui man léegi loolu moo tax loolu moo waral sama xarit bi jox ma sa numéro bi pour ma woote la pour ma wax ak yow parce que trop c'est trop ñu ngi jot message ba vidéo bi sama yaay daf koo jot sànq ah, mu mu vocal ma mais am na yoo xamante se fait pas man sama yoon nekkul si live man yëguma ci live kenn di wax man fii bu dul live Jojo Glow man du ma yëg ci live kenn. waaw. mais lii metti na ma ba si kanamu yàlla parce que woo na yónnee vidéo bi mu ngi nii sama téléphone envoyé nañ ma ko. waa bu dul yow lan ngay nekk di justifié sama xarit. non parce que lii daf ma metti parce que affaire bi ñu ngi koy wërale naan ma yaa nekk si live yaa leen may beste yaa nekk si live may beste bi démb ba léegi nekk yaa fa nekkoon di wax vidéo bi nekk. oh ma sama xarit descend ah soulon là n'importe quoi allô. allô oui ma belle. oui ma chérie ça va. bien. dafa am lu ma la bëggoon wax nga jox ma sa xalaat. dama amoon benn copain boo xamante ni maanaam moom mën nañ presque yàgg ni maanaam moom. Quer dizer, machete. Ah, mulugam. Ak nam tol. Allô? Allô? Oui. Maybe. Oui, ma chérie, ça va? yéen mën na leen rek léegi sama tur bi sama tur bi ku nekk sama tur bi la ñuy écorché ku nekk mooy ñëw di di jaxase sama tur bi lu ne laay dégg Lune, ma sonne, man allô. allô ma bestie, c'est juste pour te dire que tu es magnifique. oh qui a dit ça mais qui a dit ça mais répète pour voir si c'est de moi que tu parles. Hmm. Je t'aime fort, ma bestie. Oh, merci, c'est gentil. Allez, bye. Bisous, bye. bye. Bisous. <laughs> tey dama de la ilaha illallah li ma rakkaaju loo sax xamu leen ko instant surprise lay dencal monsieur defal naa leen ci vidéo suba suba wax naa leen defal naa leen video wax leen lan laa naral monsieur tey bu wàccee defal naa leen ci vidéo non tey laay wàccee kër gi ba zéro kirasuri laay moo tax gisoo ma ma mel ni ma mel ni golo gu ndaw nii je te maa ngi mel ni ku ñuy ndëppal de chi ay mel ni kuy daanu leer ma naral monsieur tay bu wàccee bu bu duggee ci kër gi ah déedéet tay de kër gi di ba ba allo. salam salam alaykoum salam si ça va. ça va ma chérie. Euh, en fait dama bëggoon benn affaire rek nga defal ma ngir s'il te plaît pour le samedi. parce que fait j'ai des copines ici je xam nga déjà. waaw man fii nii. démb man maa la woon di défendre sama copine bi. waa mais nag dafa am ñu bëri ñu ñëw fii malheureusement dégguñu noonu euh, kii olof. waaw dañoo ñëw ñu ni ma ñu ngi lay déglu dañuy comprendre mais mais mënuñu làkk olof bi xam nga. waaw léegi nag dañ ma wax que ni. nga dimbali leen nga jox leen ay astuce yi nga xam ne nii que ni euh, xaw ma nu may prononcer moo bi ku ñu xarafal. waa lay yëgee boppam. waaw parce que ñoom nee nañu dañoo am problème am na ci ñoo xam ne nii ni nee nañu ñu ngi sëy pendant des années xamuñu lan mooy daanu xamuñu lan mooy neex-neex. Mm-hmm. ndax xarafal bi leen xarafal. Mm-hmm. te am na ci ñoo xam ni lépp lañu dindi am na ñoo xam ne nag dese nañu tuuti. dañ leen a dañ leen a ndel fonde. exactement am ñu ñu zulu am ñu ñu man dañ leen a dal am na ñoo xam ne am na ñoo dañ leen a zulu mais am na ñoo xam ne dabalaa lañ leen di def lañ leen defal comprendre dabalaa sax am na ci dabalaa sax am na si ndeysaan dama leen a yërëm dañoo waxoon sax dañ may envoyé ay photo man leen ah xam ngeen man nag moom <laughs> comme que man <laughs> man maay kii bi <laughs> mais gannaaw bu ngeen ma envoyé tamit mënoon nañ la envoyé photo yi rek nga transféré ma ko waaw ma daal di xool xam parce que man bu ma gisee damay gën a comprendre rek. man bu ma gisee damay gën a comprendre. léegi nag nee nañu nga dimbali leen nga sarax leen boobu mooy nga jox leen ay ay conseils xam ne seen jëkkër ñoom dinañ parce que nee na ñoom tout temps seen jëkkër yi dañuy daanu xam nga di yëg neex neex ñoom dinañ defar yu neex seen jëkkër. mais seen jëkkër yi malheureusement xam nga ay laaxikat yoo xam ne nii que euh, mooy loolu daal. xam nga. Ah. dañoo dem ba ba affaire yi te jigéen am na ci bëri ñoo xam ne na ñoom xamuñu lan mooy. waaw surtout bu ñu déggee may bés si ak gatam gu rëy gi nekk fii di wax affaire waa yëfu neex neex neex neex yooyu. waaw bëri joxe envie laay privé bi. Hmm? boo joxe ay conseil dañuy bëgg a rey seen bopp. te oh. ñoom ils comprennent pas. wax nañ dëgg nag laay privé yi tamit yu doy waar laa ci wax yenn saa dama koy seetaanaan neex mais mais man maa wax lii. mais est-ce que lii maa ko génnee sama gémmañ gi fekk waaw man